ma jambal Diagne xam na àtteem ëllëgam juróom-benn weer lañ ko lañu ko daan yu ñetti weer ya daf koy tëdd kaso ñetti ya euh, si lay doon muy benn verdict boo xamante ni bi moo bàyyeekoo ci euh, jàppante bi amoon euh, diggante ak kii di Souleymane Teliko mu jàppoon ni daf ko daf ko tuumaal Madiambal Diagne nag woo dañu ko téléphone bi bi verdict bi waddee li la li la wax loolu mooy li nga mooy tey àtte tey bi terewul nag puisque yoon ñëpp la fi nekkal bi nga xam ne Souleymane Téléco yëkkati na ay kàddu ya nga xam ne jëmale teg ko ci sama nga xam tegu ko fenn bind naa ministre de la justice wax ko ni bi yoon kat magistrat pour nga topp ko il faut ministre de la justice autoriser la. Hmm. nga autoriser ma pour ma topp ko lettre boobu ministre de la justice su ma ci tontu autorisé ma ma dem cour suprême foofu lañ koy mën a ma wa jébbal leen ko di leen kër kii kat wax na di tegu ko fenn na indi firnde bi ndax sénégalais war nañoo xam-xam li wax dëgg la am dëgg bu fekkee nag dëgg la kon man na am sama casier ci dëgg ci kanam sénégalais bu dul gis ci ko seen bopp xam ni que kon kii magistrat bi wax na la xëy ne wérul kon bu ko yoon waree teg daal ci kawam dal ci kawam kon nag euh, na ni ba keroo ak lu man dem ci yoon ba mu ba sës lépp lu ma yoon mu jël. Euh, Souleymane Téliko daf ko doon topp moom itam mu doon topp Souleymane Téliko atte bi ñeel Souleymane Téliko des na bosam bu mu mën a toppee Souleymane Téliko nga xam ni daf ko sàkku ci ministère de la justice ngir mu jox ko sañ-sañ moom ma jàmbaal mu mën a topp itam magistrat bi ci wàllu yoon comme ni ko ko yoon jàppandale euh, journaliste bi itam nee nañu war naa fay ni ndàmpaay lu toll ci juróomi million ci francs fa ñeel euh, juge bi loolu itam euh, moom Mamadou Fofana laaj na ko lu ciy xalaatam moo jàmbal Diagne li la wax. bu euh, ñu waxanteel dëgg rek nag li nga tribunal bi na ko tey bettul kenn talaata euh, waa tribunal ñëpp yëgoon nañ lii mooy xew avocat yi xamoon nañ ko liggéey tribunal xam nañ ko ba am na xam ne woowoon a xaar ba mu officiel su ko defee lañ ca war a wax daañu ko ci wax kon nag tey officiel na joxe nañ seen verdict li ñu yoon may moo di ñu def appel atte dañ ko def nañu appel cour dañ ko attewaat daañu xam nu wànneen di mu bëtam waaye li wér te wóor moo di ku dégg verdict te dëppawul ak yoon dëppawul ak li nga xam ne mooy lu jaatu euh, kon dafa am leneen luñ ci nam ak yeneen yi nga xam ne mooy moom lañ ci jël mu li wax ay considération extrajudiciaire mm. ma jàmbal dafa wax li ba ba ki nga xam ne moom lañ ko seetal ko devant la barre kon na kon nag tey bu ñu bëggee dañoo bëgg a joxe a jox leçon ma jàmbal kon xamuñu ko seexal kon Madiambal Diagne li ma te fàttali di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bi ñu weesu ci benn émission bu mu doon def ci RFM la yëkkate woon ay kaddu ci xaalis bu Souleymane Téliko jot na ko ci frais de mission dënk ci dossier bu ISEN après lu mooy loolu itam ci euh, li nga xam ni moo tegu ni euh, daanaka kenn xamul lu mu tudd ci kaw njiital avenir communication di Madiambal Diagne ci avocat yu noppi woon ngir laajal ko ba ginnaaw bi ñu am na neen nu ñu taxawee loolee dogal li itam bu laaj nañ kenn ci avocat yi maître Abdou Dialy Kane ana li ko sabab lii la tontu maître Abdou Dialy Kane ci euh, yenn ci avocat yu noccee ginnaaw bi ñu nase woon ngir layil kii di Madiambal Diagne Abdou Dialy Kane yeneen i xibaar di ngeen